nee nañu wii zircon ba ñafuran mais ñafuran exploité wuñ ko ba ñu xamee ne dafa am problème dañu taxaw déglu population yi donc zircon wu euh, ñafuran kenn exploité wu ko exploité wuñ ko mais man nee naa leen fii daaw man mii ma installé aire marine protégée bu ci yu Sénégal yi dama si bokkoon donc mënu fi installé aire marine protégée ñëw tey daan dama koy yàq loolu yëpp dañ ko bindoon rek pour jaxase xelu nit ñi mais aire marine ba fa nekk ndox ma fa nekk fa naa ne am na si yéen ay député yoo xam ne dama leen ñaanoon ñu dem seeti euh, zircon ba ñuy exploité jogo ba ñu ñëwee dañu ñeen ñoom xalaatu ñoon ne sax am na nu ñuy defee noonu félicité nañu exploité parce que suuf si ñuy jël rek la tamee ko dindi li ñuy dindi sottiwaat suuf si loolu de xaw ma lan lañ si war a mën a yàq donc ay wax yu kasaw kasaw la wax yoo xam ne pour yàq der la mais vraiment Niafouran tey suñu mënoon suñu sañoon te man dinaa fa dem dem exploiter ñaf ci euh, zircon ba nga xamné pour que population bobu itamit mën bénéficier de ces ressources naturelles même chose au niveau de Djogo dem nañu ba tay sax garab yi nga xamné yaakar nañ ne mën nañ ko def muy vétiver pousse nañu société pour mu accompagner ay jeunes vétiver mooy euh, cepp bi cepp bi nga xamné tay tey suñ ko defee ci ndox mom lañ def suñu doon doon def suñu ndaa yi dañ koy def en sachet diko jaay donc foog naa ne genre yooyu la ñu war a mën a gunge xale yi ñi nga xam ne jànguñu waaye miin yaa seen wet pour jàppale leen.